salaamaaleykum amit téléspectateur Equivox TV dal leen ak jàmm Babacar maa ngi lay siyaar. Cheikh Abdou wala Abdou Saliou. Ah, maa ngi sama yaay neen nañ wax Abdou Saliou. Abdou Saliou <laughs> maa ngi lay siyaar kon li sa yaay wax moom defe naa. mooy Babacar nga xëy sañsee def sa mayo oyom def say verre. waa droit bit du mën a ñàkk xam nga Marseille équipe bu mag la. équipe bu mag la. may nuyu ki ma jox mayo bi mooy Amdi Moustapha. Mhm. maa ngi koy nuyu doomu parcelle. ak saa xam nga Marseille moom mais nag Real mooy sama équipe mais. xam nga du mën a ñàkk rek waaw Babacar dañ ci ñëw bala ñoo jeexal tey bésu jigéen ñi la insha allahu rabbi mm-hmm. ñu dem seetaani revue daal di ñëwaat asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 8 mars 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu làmb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu làmb nag moom tey xëtamu njëkk la mu ca xëy fësal maanaam Lac de Guiers numéro ak ka nga xam ne moo di bras droit di Alioune Seye numéro 2 yëglikaay bi nag kay wax kenn la mooy Alioune Seye ma nga xam ne mooy ànd ak Lac guddeeg bëccëg Alioune moom la mu xëy xamle daal nee na Lac de Guiers muy àndal yàgg moom ñuy liggéey yor na ay xalaat ak i yoo xam ne mën na daan sax ku raw Eumeu Sène moo tax moom jàpp na ne daal bii combat moom xelam dal na ci moo xam dañoo xeex weccente ay croisé wala ñu bëre pire nee na mu ci mën a doon daal jàpp na ne xaritam bi di mbërëm mi moom pare na ngir lépp Alioune Seye numéro 2 moo xëy tey waxe noonu waaye Lac de Guiers numéro moomu mook Eumeu seen daa mel ni am na adversaire boo xam ne dañu ko bokk muy ki nga xam ne mooy roi des arènes jamono jii ñu ne muy Modou Lo mu parcelle yëglikaay bi nag xamal nañu ne daal soo bëggee dégg-dëgg ñoom ñaar ñooñu ka ñu bëreel muy Modou lañ ca am maanaam nañ ca génne bokkul ndax ku ci ne bëri ngaak moom ñaari yoon Lac de Guiers 2 daa niil ak moom ñu dellu siwaat Modou gagné ko ci ay avertissement bu dee Eumeu Sène premier combat ba Modou da koo daan deuxième combat bu ñu ne déet ne waay daanaat ko yëglikaay baa wax lu mel ne ki noonu beneen xale boo xam ne moog Lac de Guiers numéro 2 ñooy ànd mu dëkk ca Géejawaay muy Macha Pereira numéro 2 moom nag moom ka yi bëreel la xëy tey di ko dànkaafu toujours pare daal Macha ne na ko booye boo nga pare de comme toujours pare nga tudde sa bopp ndax man pare naa te itam loo ci mën a dégg sama digganteek yow yomb moom naru koo def loolu mooy li nga xam ne nii moom moo di ay waxam keneen koo xam ne tamit xëy na tey di wax ka jiite Ouzin Production na ngir organiser la nga xam ne moo di huis clos waaye ci kaw kay état bi dugal ci loxoom jàppale leen moom Ousseyn Gueye loolu la xëy tey di ko wax wala nu Gueye keneen koo xam ne moom wala ñeneen ñoo xam ne moom danoo xëy di wax la leen naqari tàng seenu xol ka jiitu mooy ki nga xam ne mooy Malick Ñingi mi jiite école de yeeg écrit Malick daal la mu xëy di xam le daal na li am des daal maanaam la ko metti lool mooy ñi nga xam ne ñu ngi leen di accuser di ay mbër naan ay nervi la ñoog yu mel ni kii noonu tax na mu nga xëy daal di woote dal ne na dal la nu war a def loo lu nu def lu dul dal ñu ngi koy yàq ñun waa Sénégal loolu la Malick ñu ngi xëy tey di ko wax man mbëri mbuur ya moom wax nañu comme dañ leen doon wax ci wàllum ay nerveux yu mel ni kii noonu assurance mu ngi ci yëglikaay bi ak Auguste Mbagnick seen assurance moom la moo xam ne daal nena na li am ba des daal moom itam daal soo bëggee dégg-dégg nekkul nerveux kenn mu ngay weddi mbir ya ndax jàpp na ne moom lamb teranga ju ne jëlee na ko ci kon dépassé na fu muy nekke ab nerveux Auguste Mbagnick Sène tamit dëkk ca gox yooya moom tamit la mu xëy xam daal lenn la nee li am ba daal mbirum nerveux moom bu ko ci kenn tudd ndax moom Auguste am réewam da koo bëgg keneen koo xam ne moom tamit bëggam réewam la xëy def ba tax muy metti lu mbir ya mooy Boy ñang ma nga xam ne moo nekk ca Pikine Boy Niang itam daal li am jamono ji moom naqari na ko ba yegg ca lool ba génn na di ko wax waaye ka mu naqari moom ba yemut ca ba mu wax ko lool ba ñëpp dégg ko mooy Siteu fa mu ko waxee nag mooy ca Equivox TV démb daal la xam ne ne daal autorité yi nañu xoolaat seen bopp jàpp xel di def li leen neex maanaam Siteu ne na lool jekkul jaaduwul te xel nanguwu ko seen yee tamit Siteu wax na ak ñoom xamal na leen ne daal xale maanaam du jël loo xam ne moomu ko ndax Siteu jàpp na ne képp koo xam ne ne jàpp nga ne sàcc wala jël yëfi jàmbur mooy tax nga am boo yeboo nga même say kaaka ak say dëbës te jàpp ne am moom doo ko def ndax daa jàpp ne liggéey mooy maye kon Siteu ne na jàmm la nu soxla akuk dal te autorité yi tamit jéem a xale yi ci lu jàpp ci ëpp liggéey waaye jeunes yi daal si tane na leen bu leen toj bu leen yàq ndax lu mu ci mën a doon ñun noo ko moom te sunum réew la leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci wala yëglikaay bi ci ñëw mooy moog nga nga xam ne moo di record mooy tey ku ne xam ne moom mooy journée wu jigéen ñi le 8 mars yëglikaay ba nag tey moom ay jigéen la xëy dalal ka def loola mooy Abu Nduur kam ca jëkkee mooy Ndey Kumba Fall di reporter wala boog journaliste sportif Ndey Kumba daal mu nga xëy tey di fàttaliku ca la nga xam ne nii dalal na ko ci biir biir carrière am ca la nga xam ne wàllum licence wala boog jekku goo xam ne agressé gun leen defoon ca yoonu Casamance wax yu mel ne kii noonu nday kumba xëy na di ca wax ay Aïssatou Faye tamit ba tey di journaliste sportif moom tamit xëy na di wax daal ci daanu ba nga xam ne wala boog site bi nga xam ne nii amoon na ko wala boog mu daanu woon ko ca la nga xam ne nii wala boog mu amoon ca la nga xam ne moo doon ca combat yax jóob Yékini ba ak ca wax nga nga xam ne Selbé Ndom na ko ca Aïssa loolu la xëy wax Taneng ñëw na tey di wax li ko gën a marqué maanaam bokk na ci bi mu ñëwee Dakar nekkum arbitre saaga yaag yuuxu ya nga xam ne doon nañ ko ko def te terewul maanaam mu jàpp caw yoonam rek di arbitre Isabel Samb moom tamit di mbër mu jigéen di bëre moom tamit ñëw na tey di wax mi warsa ba ak la ko marqué ci la nga xam ne moo di carrière waaye comme dañ ne 8 mars jàppal su la neexee courage jëmale sa kanam mu dëll man nag sama 8 mars kenn laa koy jox kenn laa koy partagel sama amoore ki ma bëgg ci sama xol sama soxna mu di ma sagal di ma suturaal ma koy ñaanal yàlla jàmm gudd fan wér-gu-yaram ak njaboot gu barke muy tane ngom sama séeri xanaa am naa ci droit gomis ndax nag olof a ko wax ku ràcc jëmale sa kanam mu dëll man kooku laa yëg te kooku itam nag moo yëngal sama wii mars kon yàlla na mucc waaye yàlla na jigéen ñëpp mucc yàlla na àddina bi yëpp mucc Babacar gannaaw ba ñu leen nuyoo tey làmb ji daal di dafa mel ni dañoo dikk ak sunu làmb mu ñuy xamal ni ki nga xamante ni moo di Aliou Seye 2 coéquipier de du puncher Lac de Guiers 2 a les arguments pour battre Eumeu Sène waaw ça veut bu ñu ko waxee ci wolof mooy maanaam moom Aliou Seye ku ko xam-xam ne mhm. moom Lac de Guiers 2 yàgg nañu ànd si làmb mhm. écurie Walo boole leen ñu nekk ñaar ñoo xam ne mhm. wax dëgg yàlla seen ànd rafet na trop parce foo gis kenn ki gis ko ka mbërëm mi mu nekkal wala ki muy entraîné ñoom ñaar ñi ànd am nay argument ci xeex ak bëri yu daan Eumeu Sène defe naa xel war na koo nangu mhm. di bëri ak Eumeu Sène dëgg la parce que euh, nit ki moom da ngay jàpp ci sa xel ne man nga koo daan jàpp ne am nga ay capacité ci bëri ak ci xeex ak doole yu tax nga war ko man a daan mhm. ba tax nga jël ko mhm. waaye nag li tax mooy da di bëri kenn defu ko ñaar a koy def te la ne ca Lac mu bëgg ko gëm ko mu koy liggéey. Mhm. lu mel noonu la Eumeu Sène di liggéey. di moo lay wan ne daal ñoom ñaar dama naan ku ci nekk rek am nga ay argument yoo daane sa morom. Mhm. te incha allahu rabbi yàlla nañ fi yàlla bàyyi bala 4 avril buñ ca yeggee bu keroogee. ah lu waaye doon jaay dana lamb bu soobee suñu ah ba tey moom kooku nga xamante ni moo di Alioune Seye nee na combat bi du yomb benn yoon ndax dina am xeex dina am lutte pure. non man te ñaan. Mhm. ay bërekat lañ ay xeexkat lañ ndax ñaari jàmbaar lañ mm-hmm. ñoom ñaari ñëpp ay xeex li lak kay li li Alioune wax kay mm-hmm. maanaam mooy gij jàm nam ndox waaw yow Babacar yaakaar nga ni combat bi di dina dina di dina gaaw waaw ça mm-hmm. naa gaaw bu njëkk ba gaawutul mais bi dafa gaaw bii ci mën naa gaaw parce que loolu lépp ay sema la rek ay ay ay ñoo leen yore ku ci ne ci ñi lay wër xam nañu làmb xam nañu bëri ñoom ñaari mbëri tamit fi mu nekk ni nekkatuñu ay novice ci làmb maanaam am na fuñ ci toll ci wàllum niveau. xam nañ combat ñu koy abordé. yaa ngi dégg. Mhm. moo tax xaar ci yomb xaar ci yéex mais am na daje boo xam ne buñ ko dajee combat moom fa lay yem. fa lay yem waaw. waxu waxu Babacar la te nee naa leen dafa miin làmb ji macha allah mais ba tey ñu des ak sunu làmb ki nga xamante ni moo di Eumeu seen ak Modou Lo ak euh, Lac de Guiers 2 am benn adversaire ko moom muy Modou Lo. waaw loolu am na ñoom ñaar ku ci ne bëri nga ak Modou ñaari yoon. premier combat Lac ak Modou. Mhm. combat bu metti bu tar bëri woon coow ñu match nul. Mhm. ñu ñëwaat deuxième combat Léopold Senghor Modou gagné ko par ay avertissement. Mhm. Eumeu Sène ba tey moom euh, ki nga xam ne moom moo di Modou. bëri nañ deux fois. combat bu njëkk ba taroon trop trop trop ci xeex ak bëri. xeex ak bëri xeex ak bëri. ba Modou mujjee ko daan jël bu rëy. deuxième combat bi yàggul. ke ne gis naa ko Léopold Senghor fa lañ bëree keroog kaw la mujjee. mu def ko dóor ëmma kawate kon defe naa ñoom ñaar ku ci ne laale nga ak Modou. kii di Mathieu de Pereira averti ki nga xamante ni moo di toujours prêt nee na ko sunu combat du mës a yomb. waaw Mathieu moom muy tam Mathieu Pereira numéro 2 moom foo gis la Lac de mhm. am ne moom mooy toujours prêt combat. Mhm. Ah, nee na du yomb xale bu dëkk aslem euh, euh, fii nu mu tuddati ci secteur yi daal xale bi dëkk. Mhm. waaye combat bu ñu bëree fële ci arène nationale metti woon na. trop trop trop trop trop. waaw. ah Babacar xale yi dañuy dànkaafu rek est-ce que te bëri baa ngi ci ñoom. waaw non kii ku tàng la. Mathia mi tàngal na. waaw Mathia Pereira tàng na xam nga koo mu bëri. njaago la nag seen combat seen xeex du jeex. ki nga xamante ni moo di Ousseynou Gueye. Mhm. patron de Ousin production organise à huit kilo si l'état nu jàppale. waaw bu waaw bu fekkee état. jàppale leen waaw ko koy Abdou Saliou bu leen état jàppalee du mën a ñàkk waaye faw état ah waaw parce tamit tëgg làmb ca arène nationale bee kenn ñëwu fa. dafa metti nga génnee million fay. Mhm. te état jàpp ci su ko réglé loolu du yomb kon defe naa daal. Mhm. yàlla na leen état mën a jàppale ba ñu mën def huis clos waaye ñun dañuy ñaan sax balaa ci huis clos di am yooyu yëpp. Mhm. làmb ji mën a ubbeeku supporters yi mën a dugg. dans le pays et accusation Babacar dëkk bi nga xamante ni tàng na ki nga xamante ni moo di Malick Gningue appel au calme assurance dema waaw Malick Gningue moom moo moom moo jiite école de l'écrit yi mhm. ñu koy nuyu mu dëkk fële Pikine di président ba tey xam sa cosaan mhm. écrit bi ñoom soq ne mhm. defe naa tey moom itam su waxee war na wax parce que defe naa buñ ne mbër yi ñoom ñu yore écrit yi ñoom ñooy responsable yi parce que ñoom ñoo jiite écrit yi te kañ ci njëkk a tudd turam muy Gris Bordeaux mhm. defe naa ku ne gis na ko ba mu amee am mhm. ci saase la weddi mhm. parce que fa mu weddee ku demee kii wax di ko fa fekk dëgg la ndax ma woo ma dem ba këram mu wax lu leer nañ waaw Babacar ñu des ak sunu làmb ba tey ki nga xamante ni moo di Ousseynou Gueye patron de Ousin Production organisé a huit kilo si l' état nous nous appuie. waaw bu leen état jàppale. waaw ñu organiser huis di ko wax na dëgg. Mhm. parce que tamit kenn du organiser làmb noonu ci ndànd foy foy te amu ko ak jàppale bu ndaw defu ko. Mhm. Eh, mhm. loolu du mën a sotti euh, ba tey ñu des ak sunu làmb situation très endue euh, dans le pays et accusation ki nga xamante ni moo di Malick appel au calme assurance demain. waaw parce que loolu moo li ko waral Malick moom moo jiite président moom mooy euh, euh, jiital école de léegi écrit yi mhm. dëkk fee ca mhm. ah dafa war a wax parce que li tax mu war a wax mooy tudd nañ mbër yi te ñoom président écrit yi ak école de ñoom ñoo jiite mbër yi kon defe naa su loolu amee ñu naan ay mbër ay mbër mhm. ah mbër mu mel ni Gris Bordeaux tamit génn wax ci Equivox su jiite mbër yi ah Siteu démb ci Equivox mu waxaat mhm. ñu gis ñoom Boy ñaa wax ñoom général Malick mbër yu bari ñoom assurance mhm. ñoom Ogis mhm. mbër yëpp wax defe naa ne loolu mooy li leer kon mbër defe naa loolu ñu leen di waxal bokkul ak ñoom li ñuy jëf parce que li tax mooy Abdou mbër yi seeni supporters ñoo ne leen naqari ci réew mu defe naa ñoom danañ jomba ne ci mbedd naan dañuy dóor wala wala ñu leen di ñu koy ñu ñu koy dóor ak jàpp ak defe affaire mbër yi dépassé nañu la yaa ngi dégg kon defe naa loolu moom liñ ciy waxaat nag mooy kenn réew mi rek nañ ñaan yàlla rek yàlla indi ñu jàmm mhm. Mhm. wis yu ndox mu sedd te loolu mën ta jóge ci kenn comme li ñëpp wax mooy dëgg bukkee ko waxoon mhm. mooy président bi réew muy Macky Sall dëgg la waaw du ministre de l'intérieur wax rawa mooy wax wala ant wala Idrissa ñooñu ñun faluñu leen comme président le chef suprême des armées essayé dégg le chef de l'état mooy président Macky Sall moom la fal am na foo xam ne bu fa mbir ma tolloo du ñee ñoo war a wax mais au contraire moom moo war a wax wax ko askanam. dëgg la waaw. Euh, Babacar ñi lay jaajëfal parce que yaa ngi ciy def liggéey bu am rafet bi nga xamante ni dégg nañ bëri yi nga xamante ni ñoon ay nervi lañ. Euh, nga ciy def liggéey bu am solo. Euh, ba tey ñu des ak sunu làmb ki nga xamante ni moo di Boy Niang 2 ça fait mal pour notre pays. waaw. Mhm. waaw ba tey mooy lool rek. Mhm. ak ki nga xamante ni moo di. Euh, Auguste ñëw na si je ne suis pas nerveux j'aime mon pays. waaw bien sûr ñoom uh-huh. mbër ay patriotes lañu. Mhm. mbër Auguste mii dem équipe nationale. dëgg la gàddu drapeau. dem défendre sa Sénégal au niveau international. kooku dina leen fekk réew mu di ñu muy bokk si ñu koy. waaw ah, ca ca dëgg dëgg ca dëgg dëgg ca dëgg dëgg. waxi euh, ñu ñëw ci li nga xamante ni ku ni 8 mars wax jigéen. bien ku ni jigéen wax sangal gi nga xamante ni moom la ko yàlla jàppale. Euh, ba tey nag les femmes à l'honneur ñi nga xamante ni ñoo nekk dans la raconté ñu ngi nettali si nga xamante ni moo di seen histoire ku ci mel ni ki nga xamante ni moo di Aïcha mhm. Faye daal dinay wax journaliste sportive la ma chute au stade euh, les agressions sur surnom de euh, Selbé Ndom. Mhm. waaw ay jigéen lañu muy Aïssa Faye moomu. Mhm. ba si Ndeye Kumba Fall Ndeye Kumba Fall ñëw nga. Mhm. Teneng mii di arbitre. Isabelle Sambou Isabelle Sambou. di di di mbër. ñoom ñëpp defe naa ne tey. ak Suwaadu Wade. ak Suwaadu defe naa. ay jigéen lañ yoo xam ne wax dëgg yàlla. parce que ñaar ñii muy Aïssa ak Ndeye Kumba maak ñoom partagé nañu benn rédaction di liggéey. ñu nekk ay jàmbaar. macha allah seen xalima ñëw lool. ñu jaar ci ay journaux yu bari. def carrière bu riche. macha allah ba tey di leen nuyu di leen ziar may sa fay madame ñaa nday kumba yaay Mohamed mhm. parce que sama ay lonko la yàlla dogal loolu mhm. te mii tamit wax dëgg yàlla rencontré nañ gis naa ko muy arbitré depuis ma ko waxee sama soxna te la tudd ca lañ jàppante dëgg la ndeysaan yaa mhm. a am na solo am na am na solo vraiment euh, kon nee la fi la ndar xeppe xibaar yi nga xamante euh, moo nekkoon li nga xamante moo di revue de l'arène di ñaan ci réew mi jàmm comme Babacar ni mu ko waxee waxee rek réew mi suñu réew la Sénégal ñun ñoo ko moom et que benn bopp la di ñaan ki nga xamante ni moo di njiitu réew mi li Babacar wax ñun waxuñoo ak ministère de la justice waxuñoo mm-hmm. kenn koo xamante ni dañ dénk ñu la suñu réew ñun président la ñu dénk suñu réew mm-hmm. et que ni lii di xew ci dëkk bi dafa metti trop mm-hmm. nit ñi di dee kenn talatul lekk kenn talatul naan ngir yàlla war a suuli monsieur le président de la république ñu ngi la koy ñaan nga génn wax ak askan bi parce que askan bi kat yaa leen jiite te Sénégal jàmm la wax di ñaanal xalifa généraux yëpp jàmm yàlla na di la ñaanal jàmm di ko ñaanal sama yaayu cadreur bu mag boobu kooku di Gomis ak Modou Khoule ak yaayu Habib yaayu DG ñoom ñëpp daal ñu ngi leen ñaanal jàmm bare bare yaay yëpp ñu ngi leen ñaanal jàmm waaw ci barkeb Serigne Saliou mhm. mhm. waaw yow ki saf ma sax boo la sax waaw. nag ko nga xam ne yaa ko fekk ca kër ndeyam ak baayam. Mm-hmm. bëgganteeg moom ñu may la ko ci farataas yàlla sunas Mohamed. mu jaay santam. Mm-hmm. ñëw sa kër di la muñal. dëgg la kenn xamul loo am ak loo amul kon te ne ngom moom aw ma fayam. dëgg la yàlla na yàlla def. njaboot gi barke amiin amiin yàlla bàyyi ci musuñu ci saytaane amiin yàlla wallaay ñaan mu nekk soxna suma déggal mm-hmm. wallaay la si mu waxuma ko pour jeter ko ay fleur mais loolu mooy am kii ma mooy li nekk ku ma déggal ku ma muñal waaw liñ ne aaw buuru këram moom mu nga ca yoon woowa mhm. bu dee buur itam dox doxi ni buur mu ngi doxe ci ndigal mhm. di ci wéy mhm. yaa ngi dégg muñal ma muy nuyu ay mbokkam yi ma ko may muy ay way juram ci côté ñi sant ngom muy ay way juram ci côté ñi sant seen waa daadaka waa ngooceem su ma ko waxee mooy ndondol yaa dégg képp kuy mbokkum teneng daal jàppal ne Babacar nga lay fekk fa nga nekk di la nuyu 8 mars bi tey daal teneng laa ci ziar di ko ci ñaanal jàmm di ko wax ne ko daal saa yu ma xëyee rek gomis wala abdu dama koy gën a nopp waaye sama yaay ji suuf itam maa koy ñaanal yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana parce que tamit mhm. mhm. mhm. mën a ñàkk fa kullu mën ay la faaniya loolu waxe suñu borom kon yéen la yàlla na Sénégal am jàmm